asalaamaaleykum mbokk internet yi seen football TV nuyu naa leen bu baax jeex am mbégte saa su ne vidéo mbokk yi xibaar tey dama koy si Jeux olympiques bi xamante ne suñuy athlètes yëpp dem nañu eh, donc ñoom ñëpp la ñu éliminé mu nekk lu xamantene déception la et eh, mais jàngat lañ ci war a am mooy li may wax rek bu fekkee discipline yeneen yi dañ si bëgg am dara et que gouvernement bi bees bi am na lu mu bëgg a mettre en place si seen projet bi mooy que éducation bi école yëpp ñu def si discipline yëpp athlétisme handball volleyball tous ces sports yooyu noonu ñu travailler ay xale mais loolu nag looy jëmmat la di xaar après avenir bi mu sotti du lu xamantene day da nga def 2024 2025 nga ne da nga ci am dara da nga koy récolter déedéet comme garab bi ngay ji di xaar donc bu ñu defee discipline yi sport yi am ay infrastructure euh, dooleel yeneen discipline yi parce que football rek nekku fi ak basket ak euh, làmb boobaa ëllëg y bi yeneen euh, Jeux olympiques mën nañu am dara mais jusqu'à présent ben, la ñu am di encourager ñi fa dem ñëpp je pense que ray nañ seen bopp que ça soit canoë kayak bi ñi nekk si athlétisme yeneen sport yëpp gis nañ seen taxawaay def ngeen dooleel mën pour sigil Sénégal je pense que ça même sigil ngeen que na leen dooleel euh, financièrement parlant jàppale leen accompagner leen et dans l'avenir incha allah suñu ba mën nañu taxaw yeneen Jeux olympiques bu ñëwee ñu am dara on va parler de Chelsea si mais wa Chelsea do len beug sept gardien loolu lañ koy doyee wa Chelsea yéen a ngi jënd rek jënd wat deux attaquants tous ces joueurs là bu pare maa ngi dégg na ñu né dañuy jaay 12 jours mais depuis que euh, Abraham jóg bi actionnaire Chelsea bu ken xam lu muy def le projet on sait pas c'est quoi ni ngay jënd joueurs yu dul jeex sept gardien lo koy doyee jënd beneen ñaari attaquant jënd tous ces jours là joxe say mais ces jours yi xamante ne pare nañ club bi rey seen bopp muy Saloba muy euh, Kalaga ces jours là xam depuis bu ñu amee 5 ans 6 ans la ñu nekk Chelsea pare pour mouiller le maillot pare pour def le Chelsea dem jël yeneen jours c' est quoi le projet en fait. moo tax ñu bëri ma poser question est ce que c'est inquiétant pour euh, Jackson c' est pas inquiétant ah hein? c' pas inquiétant pour Jackson Jackson il va jouer je pense C'est à lui de confirmer l'année mu def l' année dernière ragaluma par rek ay concurrents mais le projet de Chelsea franchement a supporter de Chelsea wax leen est-ce que kontaan ngeen si seen équipe actuellement. Abraham bi su fi ay entraîneur doon jënd ay on savait l'objectif xamoon le projet xamoon nañ fu ñu jëm mais joxe Pochettino bi déjà bàyyi mu dem yoonam pour man erreur la. gis nañ seen match bëgg jouer le même football que euh, donc qui dit Pep Guardiola ressortir de derrière di jël ay ngëndi risque di may ay but gratuitement football bu on recommence à zéro pour tu à lu le travail bàyyi leen mu am continuité mais on sait pas c'est quoi le projet de Chelsea Jackson d'un côté je m'inquiète d'un autre côté amul lu ñuy inquiété parce que Jackson moy Jackson rek Jackson moy Chelsea ñoy ñoy quoi te commence je crois bu commencé dugal bi ken duggatee mais ça va être compliqué man lima ci dal sama xel moy Mudrik donc euh, Jackson ak euh, Nkunku buñ ko toggé ba mu ñor peut-être mën servir à quelque chose mais tous ces joueurs là pour faire quoi à Chelsea pour faire quoi Tu commentaire wax on va parler aussi de yeneen mercato olympique de Marseille finalement mën nañu am Nketiah Fabrizio Romano xamal ne que Marseille presque dañoo profité aussi waxi boobu noonu pour am euh, parce que waxi on lance beaucoup de transferts transfert euh, donc option d'achat dañoo transfert sec 35 millions de dollars. C'est une Marseille option d'achat lañ bëggoon et c'est année sur année donc c'est d'accord ñu et Marseille euh, donc xam waa Arsenal xam nañ ne Marseille moo positionné pour donc revoir leur prix à la baisse pare nañ pour wàññi jusqu'à 27 millions Il faut que Marseille defaat une offre et que Nketiah mën dem pour 5 ans en man d'un côté je xaw à Wahi Wahi peut-être wax na mos jouer ma football Marseille et tout mais Nketiah c'est quand même quelqu'un qui a fait la profondeur c'est quelqu'un qui a ne confiance et en l'absence de Jesus du côté de Arsenal il a fait quand même de très bons matchs je trouve que c'est un attaquant moderne et donc c'est un autre profil c'est un autre profil propre à Wahi c'est un joueur assez euh, prometteur Il def Montpellier il est def du côté de Arsenal même si euh, saison bu tane rek du côté de Lens avec 12 buts claqués sur saison biais, toutes tout compétition confondue euh, Nketiah quand même c'est bon c'est un très bon attaquant qui connaît le très haut niveau il est plus âgé il a 25 ans il peut il peut le faire avec Greenwood à, l'attaque donc euh, sans compter Moukoko bi xamante du côté de Dortmund ça va être hyper intéressant pour l'Olympique de Marseille. gars yi doo leen wax doo leen wax wax leen waa Italie Italie ñu leen gën a résister bu ñu ñëwee France France c'est vrai espagnol ñoo c'est vrai. mais Italie tamit comme mën a gën a res xool li ñu def jabi li ñu def jabi gars yi doo leen si wax yéen ñi di siffler moo tax man Italie xaw ma la la quoi man man man Italie mënu ma neex quoi. c'est vrai nag am na suñu ay euh, ay ay mbokk Sénégal yi ñu fay daan seen doole ñu ne boo yemee si place def li la la wax euh, amul d'un côté mais de l'autre côté dañoo sof ak seen i sifflet ak seen i kii ak def joueurs noirs yi. c'est pas match amical bu dee bi match amical 2 jeex na looy siffler ay jabi. surtout de l'autre côté yow équipe amna ay noirs yu dul jeex Thuram mu du football ak ñeneen ak ñeneen ak ñeneen c'est compliqué donc man franchement c'est c'est frustration là, am à chaque fois que je vois Italie li muy def joueur Italie euh, joueur noirs on se rappelle de Ronaldinho on se rappelle de Eto'o on se rappelle de euh, Kevin Boateng Il y a énormément de joueurs noirs te ñoom dañuy am ay joueurs noirs di leen def yenn quoi et FIFA li mu ci war a exemple il y a beaucoup de joueurs Koulibaly li ko dund fofu du jeex Balotelli bu ñu doon wax noir yi ñu ko def du yoon am loo xamante boo ko gisee da nga dal c'est bu ñu neexee ñu wax nii il faut que ñu respecte noir yi ah. yeneen information yi aussi yoo xam ne nañ ko wax euh, Issa Hayatou aussi ñu ngi koy euh, ñaanal yàlla yërëm ko xaral ko aljana yi gën a ko mu nekk ancien euh, donc président CAF nekk Camerounais doon xeexal lu bëri football africain lu bëri daal nañ ci kawam lu bëri peut-être ci football bi mais lu bëri aussi tamit bi mu fi nekkee nu ñu woon CAF donc instant respecté wu ñooñu kaf donc ñu ngi koy ñaanal yàlla yërëm ko xaral ko aljana yi gën a ko way euh, yeneen information yi mën nañu wax ne Richard Wilson finalement day resté joxe na benn déclaration di wax ne donc c' est bien d' avoir de l' argent nee na mais moom rêve mooy toog euh, Europe jël trophée yi gën a rëy donc loolu c' est pourquoi ku mettul narul dem foofu donc moom aussi euh, loolu mën nañu ko joxe comme information Pepe aussi tamit bàyyi na football Pepe un grand joueur donc dernier match am c' était contre la France euh, donc en ci tir au mu jooy joy yu métti Pepe 40 ans là, nek nekk un jour de Porto Real Madrid ak li fa def yëpp nek un jour xam il a gagné la Ligue des champions euh, donc jël le coupe d'Europe Pepe aussi tamit bàyyi football lu lu lu lu xawa euh, doy waar. len loo xam mané ko joxe aussi moy Mbappé Mbappé tay def na premier entraînement avec Real Madrid Maison Blanche on va voir. la lay la lay def ci football mondial en Espagne surtout et en Ligue des champions avec l'équipe de Ancelotti ak les Bellingham les Vinicius Junior, tous ces jours là Je pense que le monde du football, moi, je Kylian Mbappé. Et on va voir est-ce qu'il va prouver ou pas. L'Oliep, euh, Noël Mendy 19 ans juddoo fii ci réew mi un jour bu xamante ne ñu koy gis match amicaux c'est très important Tant yi ma ngi seen commentaire ngeen wax C'est wax un jour pour xam def naa ci découverte c'est un jour pour xam am naa ci moom saison bu excellent du côté de Betis Séville euh, gis nañ contre Liverpool il a un très bon match capable de jouer axe capable de jouer latéral droit Amna taxaway, Amna GABARI, très bon joueur bu xamantene vous euh, deful nànk est-ce que Guinée Bissau du rocceeku nànk si ko même si euh, on sait que le boy le sénégalais le sénégalais le japonais, le et tout mais on attend euh, cette année le na a am temps de jeu avec du côté de Betis Séville et je pense que mo ngi gagner ay points yu donc si si si match amicaux ça va être très intéressant du moment où dañu bëgg rajeunir équipe bi du moment où que euh, voilà euh, donc équipe nationale du Sénégal donc maintenant droit c'est plus latéral gauche donc il est capable de me concurrencer Jacob c'est possible mais c'est à lui aussi système du côté de Liga espagnole le maximum de euh, de même si c'est c'est pas évident c'est un jeune joueur Il fa faire que bu vous bu poste de latéral gauche du côté de Betis bi amna borom ba mais pas de place que non seulement axe non seulement que ça soit Coupe du Roi ou la deuxième mi-temps c'est à lui de cravasser c'est à lui de mouiller le maillot et li nu mel bu defee maintenant après pourquoi pas nous prétendre une place pour en équipe du Sénégal c'est bien possible parce qu'il est capable de ça. il yi a jeexal xibaar yi wax ci kan Fodé ballo Fodé de Balotouré, nag na dem Celta Vigo mais finalement dégg naa équipe espagnole bi day bàyyi mu sedd parce que nous ko jënd déjà en termes de salaire c'est compliqué te y un am problème financier donc moi aussi trouver change que deux semaines il faut que je me trouver un club preneur parce que yow am nga fi ay Watford la fi tu première ligue nga bëgg équipe championship Angleterre la alors que y' a d'autres équipes italiennes qui la doon Il y' a des équipes du côté de un France Il y' a Bundesliga donc je bu ndaw ba normalement heure bi yaa war nekk titulaire hymne du Sénégal mais dem nga ba sénégalais jàpp ne sax war ñu la convoqué xam nga donc peut ne la daaw 6 matchs nga football xam nga neuf matchs du côté de Fulham c'est compliqué bi ngay dem Coupe d'Afrique 9 minutes nga am Aliou Cissé yóbbu la donc yow Aliou Cissé boo defee tuuti da lay woo il suffit juste nga am temps de jeu daf lay woo ku xamante ne neuf minutes la am mu nga yóbbu ko xam nga donc Coupe d'Afrique sax da nga blessé donc kooku kooku kooku Aliou Cissé bëgg na la pendant ce temps y a d'autres joueurs sénégalais qui ont nous def seen nous football nous ngi seen nous katan xam donc Aliou Cissé je pense que ay peut-être doy nga ko doy il se dit que yow mii voilà c'est temps de ailleurs donc euh, il est important de de de voir lan que gën sa carrière donc il est moment parce que ba ne la plan jël na la ne la U23 na la ay plan donc amal sa fulla sa fayda sa agent am li nu mel ngeen trouver club dem football yi